ngeen jëf mbokki internet yu Info 7 dali nag jàmm ci actualité de la semaine ngeen koy am ajuma ji yàlla sàkk tey ajuma ñaar fukki fan ci weeru octobre atum 2023 comme ni ngeen koy baaxoo di am ajuma ji yàlla sàkk ñu daal di toog fii waxtaan ak ci ay actualité yu fi jaar ci semaine bi bokk na ci tey ji actualité fi na ma waxtaane mooy mbirum Baye Fall yi damono ji nag mel na ni euh, euh, coow daal na ci am ndax gis ngeen li xewoon fële ca côté euh, côté corniche belal loola dina bokk ci waxtaan yi bokk na ci euh, marché yi jamono ji nemmeeku na maal bu daaru marnaan gi nga xamante ne daanu na lu yàggul dara li ni bu fekkente ne juguñu ci mën na dem ba indi jéyee ba tax na démb am na benn maal boo xamante elem euh, info 7 dem na fa def reportage ñoom it ñu ngi euh, daal di dànkaafu liggéeykat yi ñu daal di saytu maal yi ndax jamono ji bëri na maal yu nekkee ci marché yi nekkee ci biir Touba jamono ji daanaka seen liggéey muccatul ayib te li ni mën a indi ay ci doomu aadama ya fay nekk li dana bokk ci waxtaan yi Ah, bokk na ci mandataire bu euh, Ousmane Sonko Ayib Daffé demoon fële ca direction des élections ngir daa di euh, ñu jox ko fiche de parrainage waaye dafa mel ni mbir mi dafa taggatéeme ba léegi ndax saa su ne ma ngay euh, def aller ak wala boog dem ak dikk mbir mi sotteegul ba léegi li ni mel lan mooy conséquence bi ak lan la état yoon war a dogal ci yëf yi ndax day jot am du jot ndax mbir mi jëliñu ko au sérieux pro au sérieux de politique ñu ko politique li nga xamante ne nii mooy mbirum Ayib Daffé foofu ca direction daanaka nemmeeku nañ ne dem na fa waaye daanaka duggul dina bokk ci waxtaan bu baax a baax bokk na ci euh, mbir mi nga xamante ne mooy mbirum parrainage ba tey euh, ñeneen candidat euh, yi nga xamante ne jamono ji mel na ni parrainé parrainage yi dafa dëgër seen côté ku ci mel ni Abdourahmane Diouf ak ki nga xamante ne moo di Pape Djibril Fall ndax dafa mel ni ñoom surtout Pape Djibril Fall mi nga xam ne dafa mel ni message am da ko adressé lu jëm ci Ousmane Sonko ndax dafa mel ni ñu ngi wax ñi ku loi bi dafa wax ni ku am 13 député daanaka warut wut euh, parrain citoyen mais dafa mel ni waa nguur gi dañoo dem ci terrain bi ngir daal di wut euh, parrain citoyen te loolu waru leen benn yoon loolu dana bokk ci waxtaan yi bokk na ci mbiru Senelec bi nga xamante ne jamono ji coow topp na leen chertaayu courant bi ak problème facture ndax bu njëkk ku daan facturé tey ji seentul 150 ba 60 li ni mel yan conséquence dana bokk ci débat bi ñu daal ko jeexale fële ca Palestine ak Israël nemmeeku na jëye yi fi am fan yi euh, suñu mbokki jullit dafa nekk ñu fay daj ay musiba yu xamante ne Israël di ko bombar seen kaw loolu it ana lan la ci réew jullit yi xaar ci ay euh, commentaire wala ñaari naataango tey nag sawru daa defi wuutu Madieng euh, muy ci yeneen yitte mais incha allah dina ñëwaat euh, kon ma daal di nuyu sama gars yi Kéba maa leen bu baax a baax da dalal jàmm ci actuel de la semaine. waaleykum salaam Mamadou ñu ngi lay nuyu bu baax di la fay nuyu di nuyu mbokk yi ñuy seetaan ci Info 7 TV biir réew ak bitim réew. comme ni nga ko waxee tey jile la vendredi comme ni ñu koy defee rek ñuy ñaan yàlla suñu kàddu fekk ñëpp ci jàmm waaye dooree nuyoo bi siyaar ñaanal xalif général de Mouride Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bassir ba lépp li mu naal ngir ko liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasul matale ko di ñaanal mbooleem xalifa yi nekkee ci biir réew meek bitim réew yëpp ah, di comme ni nga ko waxee ci kanam tuuti ñu fas kenn ñëw waxtaane waxtaane waaye ñuy nuyu ci nga xamante ni moom lañ bokkat tey débat bi muy sawriñaa di suñu naataango ñu ngi koy nuyu di nuyu ñu seetaan jërëjëf tey nag moom moo fi wutu Madieng baaxoo ngeen heure bi ngeen daan ñu daan jàkkaarloo moom tey nag Sawru daal di ko wuti namut kay euh, Madieng dafa nekk yeneen yitte Sawru maa ngi lay nuyu. Mamadou maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu mbokki Info 7 di nuyu itam képp koo xam ne yaa ngi siifur seen bu mag bi nga xamante ni moo di Info 7 di nuyu suñu doyen Kéba di nuyu itam euh, Madieng mi nga xam ne moo fi daan toog fii tey jii ñu war a ñëw ànd ak yéen ci li nga xam ne moo di waxtaan bi di di. ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke al Basiru mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba nga xam ne naal yi nga xam ne moom la am ci yoonu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mu mën ko àggale te saa bu saa bu geesoo rek gis ñu ci li nga xam ne moo di ginnaawam Mamadou Ba xam naa li ma yëg tey am na lu ko yàlla wax ci alxuraan ah waaw xam naa moom dafa mel nii comme moom ñëwul. <laughs> Eh. te dafa am ci leneen lu mu nekk eh. loolu moom. Keba moo koy indi li nga xam ne mooy aaya ji wala ji ñoo ngi koy xaar. <laughs> jërëjëf Keba ñu dooree waxtaanee mbiru Baye Fall gis nañ ne fan yee yàggul dara fële ca kër Baye fële ca corniche belal coow yi fa ak bii ci fii lu ñu soriwul dara fii ci ñaari pono ndax mbir mi euh, euh, lan nga jàpp ne moom mooy dëgg-dëgg problème bi. Euh, jërëjëf Mamadou xam naa mbirum Baye Fall yi moom. <laughs> depuis ñu jox leen digal léegi léegi. Mhm. coow yu ci jib bari nañu euh, li ci xew lépp bari na mhm. xam naa li may njëkkee mooy jamono ji moo toll foo xam ne tërëdi na tërëdi goo xam ne bu mhm. fekkee ay nit dana nekk ci ndëngate mhm. te nga jubbanti leen day jafe ndax olof day wax ne ak garab bu fekkee daa tooy nga jubbanti ko si lay gën a yomb ka bu demee bu màgg li waral nag li nu mel di am xajana mbiru Baay Faal lañ gis moom lañ mën a waxtaanee li ciy xew it am na ay conséquences am na loo xam ne war nañoo jàpp ne war na see mën a ñàkk mais xam nga mbir mi day mbir moo xam ne ni ndigal la loo xam ne ci xalif général de Mouride la jógee Cheikh Mamadou Mountakha mm-hmm. mu ne yéen njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gi la ñuy dénk dëkk bi mm-hmm. pour ngeen saytu ko mm-hmm. ñi fi nekk di def na ko dul noonu ñu teg seeni i teg seeni i loi communiqué ko avant mbir mi yegg si bi mu yegg see itam la leen ci waroon ñu ngi koy def bokk na ci yaatal dëkk bi def nañ ko fi gis nga li ñu def si marché yeeg yëpp defar fi ay garab jëmbat ko fi dindi mbalit mi fi newoon xam nga loolu liggéey la boo xam ne nii ñoom seen si lañ yàgg di nekk mm-hmm. bi ci jur conséquence mooy li ñuy tere doomu aadama yi mm-hmm. ñu ne duñu ko bàyyi wala ñenn ñi lànk ne duñu ko ba problème boobu nag léegi mm-hmm. nit ñi ñoo war a xool ci biir côté ndax ndigal li Baay Faal yi dañuy jëfee ndigal si loo xamante ni dañ koy def seen bànneexu bopp walla ndigal la lu jógee ci sëriñ Mouhamadou Mountakha ñaar dafa am ndigal la lu ñu leen yebal ñu koy def waaye nag kër ak Cheikh Mouhamadou Bachir mu ngi koy waxaat ne ndigal caabi la bu ëppee du tijji su manqué du tijji soo ko ci jéemee force mu yàq léegi nag ñaar yooyu moo ci am ñoom Baye Fall yi nga xam ne ñoom la yàlla dogal ndigal di tàbbi seen kaw mm-hmm. ñuy njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ñu yebal leen ñu war a def liggéey bi sur le terrain mm-hmm. dafa am responsabilité bu ñu leen dénk ndax doomu aadama bu la waxee ne da nga war a def maintien de l'ordre ndax fekk nga man kat damaa nekk ci désordre ndax bi ma ñëwee li ma waroon def man defuma ko mooy dafa am sart yi ñu tëree ma war koo jëfee jëfeewuma ko man su ma ñëwee ci yow pour fexe rétablir l'ordre dafa am lu ma war a communiquer ak yow mooy naa la xamal ne ah lii ngay def de sëriñ bi da ko tere donte ko waxaloon nañ la ko mhm. mais àdduna ak njumte moo ànd mhm. ndax yàlla suñu borom mi nga xam ne ñu bind tudde ñu al insaan mhm. dafa jàpp ne mutuñu moo tax mu tudde ñu mooy ko mutut te yàlla suñu borom mi nga xam ne moo ne bu ngeen ma tooñee di leen ma jéggalu ba mu def raxmaan def rëyam raxmaan gi ñi ci àddina la njéggalu fii rëyam mooy ci àllaaxira kon loolu it dañ ciy jàngewaat ne dañoo nekk ci loo xamante nii pour bëgg mu baax la ñi defar dañoo bëgg mu baax ñu ne ci dëkk bii it Serigne Touba leen fi ndax moo sancoon dëkkam ñëpp dëkk bi li fi nekk ñor leen liggéey bi nga xam ne moom la sëriñ bi ne tax ñuy ay taalibe ñëw dëkkee ci dëkk bi léegi nag bu fekkee mbirum mbirum ay taalibe kese la mbirum ay eh, doomu dëkk bi kese la ñun ñëpp nañ jéem a tënku ci ndigal li waaye ñi nga xam ne ñooy ci mbokk Baay Faal yi itam nanoo xam ne liggéey bi ñuy def dañ ko war a def ak respect ci ñi nga xam ne lañ dajee ndax ñëpp taalibe sëriñ Tuubaa lañ ndax donte ko am nañ ko mais mbir mu nekk loolaf Njaay naan lépp loo gis rek du ñàkk tànneet ndax am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir mbir mi amaana keroog déglu naa ko ci mel ne Serigne daam Soda mu nga xam ne moo yor kàddu xalifa général de Baye di ko wax mhm. ne ñun dañuy nangu ne am nañu ne suñu biir mhm. ñu ñu jàpp ne ñoom léeg-léeg la leen war a def duñ lañu war a def nañ ko war a defee mhm. du ñàkk njuumte wante teg na ci leneen lu am solo mooy ku ci def lu defuwul muy erreur ba ñu xam ko ni ñuy sanctionné ñi nga xam ne ñoom la ndigal li dal seen kaw ñuy nga xam ne lañ yebal pour ñu jëfee ndigal ñu toppatoo ndigal loolu it bu fekkee ñooñee def nañ lu defoot dañ leen di sanctionné kon loolu it day doon am solo kon ñun ñi nga xam ne ñooy taalibe ñu ñuy digal it nañu xam ne lii ñu bëgg lu baax képp la ci ñun lu baax képp ci dëkk bi la mais nag doomu aadama nag nit nit la boo ñëwee ci moom nit ku ànd ak xelam ànd ak sagom boo ñëwee fekk mu def njuumte da koy nangul na ko lii de njuumte la waaye boo ko defee woon nii ak nii ak nii boobaa dina gën te boobaa dina rafetal li ngay liggéey ndax kilifa bu la yónnee mm-hmm. ndax euh, dégg naa woykati arab bi wax ko nee nañ képp koo xam ne dañ lay yónni rek yaa ngi doxee si ndigalal ka la yónnee mm-hmm. moo tax ñu jox leen respect boobu noonu léegi ñoom nag bu fekkee kilifa da laa yónni nga dem ci yónneenu kilifa googe da nga ciy doxee tànk yoo xam ne xam nga sëñ moom bu ndaxaa koo xam doo koy xamee borom ree ji neex bi borom dal gi borom jàmm gi bu réew mi jaxasoo si moom la ñu ñëw kon nag bu yebalee ay ndaw it ñu dem sur le terrain <coughs> ngir jéem a xool nit ñoo xam ne ñoo nekkut ci lu war a nekk ngir ñu tegaat leen ci yoon ñooñu itam war na am bu ñu war a bi dugg na ci doomu adama yi wala bokk population yi ba ñu xam ne lii moo war doomu aadama ji nga mën a tegu ci lii moytu lii est-ce que loolu dugg na si nopp ñi nga xamante ne ñoom la ñuy euh, dal seen ko wala ñi nga xamante ne ñoo jàpp ne ñoo wàcc yoon ba ñu leen di tegaat yoon est-ce que communication bi egg na si ñoom nga jàpp Mamadou fii amut lu fi yeggul ndax mbir mi biñ leen ko joxee def nañ seen tablo doyul ñu dugg ci mbooleem seexi maam euh, Serigne Touba yi nekk fii ci dëkk bi ku nekk ñu yegg sa kër mhm. wax la liñ leen sant mhm. wax leen niñ ko war a defee ak niñ koy defee ñoom nag doomu aadama sànq njuumte moom ak nit moo ànd parce que moo tax yàlla def raxmaan ak rëyam bu kii juumee mhm. na ngeen ko jéggal yàlla ne bu ngeen juumee bu ngeen ma tooñee jéggalu ma ma jéggal leen kon ñu nit loolu dañ koy nangu waaye nag nit bu fekkee ndigal dafa nekk ci say loxo mhm. yowi ndigal li ñu la sant ni ko sëñ bi waxee caabi la bu mëpp bu yées mhm. li ñu la sant kay ni ñu la ko santee mooy nga fexe nit ñi dañoo jubadi ndax maam diina li exceptionnel la maanaam boo xoolee Sénégal li ñu fi am muy soufisme bi ñuy dund muy tarixa yi bokkut ak leneen ni maanaam tey gis ma déggoo fi artiste bu ñu seexal mu doon ab sëriñ di yori taalibe diina day fekk ku newut ci lu lu normal mu indiwaat la mu indiwaat la bokkul ak mbirum àddina àddina nag moom dalay fekk nga ne si benn mbir mu exploité la ngir benn biit bi soxla mu am ko mais diina dalay fekk nga ne si lu nekkut mu indiwaat la xam nga tey man mi nga xam ne damaa ne ci diina ji ki nga xam ne mi duutoon musulman mhm. moom dafa judd ci kéeféer bis bu xëyee tub dugg si diina ji ëppaleetuma ko si dara ñoo ci bokk yem moom ah. ak man léegi li des nag mooy ñu travailler pour yóbbal gi ñu war a yóbbalante suñu borom mhm. yóbbal googee nag ku nekk yaa koy liggéey ñun nag ay taalibe lañ taalibe ndigal mhm. murit ndigal la ñuy wax mhm. ndigal li nag ñun ñëpp la war a yem ñi nga xam ne ñoom lañ yebal sur le terrain bu ñëppal ëppal bu ñu yeesal ñi ñuy fekke ji ñoom itam nañ xam ne ñii ñu leen yónni nañ leen xoolee jëmmi Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi leen yónni mi leen yónni jërëjëf Sawru dégg nga li Keba wax est-ce que jàppul ne lii maanaam Euh, euh, dafa am ñu nekk ci biir di euh, mbubboo ne ñun ay baay Fall wala ñun dañoo jox ay car ay carte ngir ñu mën a saytu doomu aadama yi ci dëkk bi est que loolu nekkul loo xamante ne nii daf cee tàbbi. waaw Mamadou comme ni ko Keba waxee am na ci point point yoo xam ne. Mhm. man ak moom bokk na ci gis-gis. Mhm. mais am na ci yenn point ay point tam. Mhm. yoo xam ne dinaa ko leeral ba mu leer ci ni nga xam ne man. noonu laa ko déggee. premier point bi mooy Serigne Mountakha Mbacké al Basir bu fekkente ne déglu ngeen fa affaire bi commencé. point yëpp dañ koo jël lim ko. wax ne nangam a ci bokk ak nangam ak nangam. kon ñun bu nekkee ci dëkk bi. ñu dem ba mu yàgg ñu gis ne maanaam am na ñeneen ñoo xam ne tey. ñi ngi doxalee noo xam ne bokkut ak li nga xam ne déggoon nañ ko ci wax ji. kon ñun dañ ci am ak ak jaaxle. Mm-hmm. waaye itam bu ñu sukkandikoo ci nga xam ne mooy sëriñ Dame Soore it. ci biir waxam da nga dégg ñu mu ne maanaam pañeeb guro bu ne du ñàkk am lu ñuy wax sànkara. sànkara ci biir. waaw parce que tam bu fekkente ne tey dañoo gis koo xamante ne nii maanaam comme tey mën nañ ci am ñoo xam ne mën nañ lay ànd muy waa kër Baye Mbaye Baye Mbaye sekk yi nga xam ne ñu ngi nekk kër Baye mhm. ay nit lañ ñoo xam ne nii ñu am dal lañ. Mhm. Ah, dal nañ ci ñoom barki démb ñu fekk ñu am koo xamante ne nii dañ ko gis mu watu dégradé ci kaw. tiwo bi nga xamante ne nii moo jaar ci tali bi nga xam ne mi ngi soqeekoo kër baylaat te lañ ko fekk ñoom ñu tibu ko di ko wat te kooku muskalaf la war naa am normalement ay 35 ans mais ñoom bi ñuy bi ñuy ñëwee ñun ñi nga xam ne dañuy suivre information ak tam ndax gars yi mhm. ni ñu leen waxee na leen nga day leen ko waxee ak ñoom est ce que ñu ngi koy waxee ak ñoom dañoo taxaw déglu leen li sëñ Abdoulaye di wax dana nit mhm. soo koy déglu da ngay lem say tànk waaye da ngay talal sam xel mhm. Mor Seck mu ñëw ko ah sëñ bi de hmm. wateef gii nga watu hmm. maanaam dafa bokk ci tere yi nga xam ne dañ koy aaya ba noppi ñun lañ koy saytuloo hmm. waa ji dafa toog ci suuf mu ne ko léegi ñun yor nañ ay tondos yoo xam ne courant lañ koy chargé mais boobu dafa instant bi dafa fay léegi nag waa mën nañu ànd dem ci coiffeur ñu fayal la soit tam ñu wat la waa ji na leen man loo xam ne maanaam en tant ak murit li ñu wax du ma nangu ñi ngeen may fayal yéen kay wat leen ma ci ni ngeen di watee waa ji génne recevoir bu bees monte ci lañ set mu toog mu toog jàkkaarloo ak moom mu jël commencé fi ñu xam ne fi lañ baaxoo watee muy kare ci côté côté kii bi droite bi mhm. mu commencé ko ba noppi doog a dem ci digg bi wat ko waaw ndeyjoor gi wat ko nen boo xamante ne nii bu set wecc la bi mu pare waa ji moo làmbu làmb 2000 francs joxaat Baye Fall na leen maa ko jàppee ci liggéey bi communication boobu communication bu baax la waaye da ci am ñenn ci ñoo xam ne dafa am noo xam ne ni ñuy doxee dangay xam ne lii maanaam li sëñ daam soore di wax ne am na lu ci njaboot nag bu fekkente ne da leen di liggéeyloo ñu war a dem xëy na tam communication bi waroon a am bu fekkente ne am na it am na ñenn ci ñoom ñoo xam ne dégguñu ko ndax des fois nga dégg koo xamante ne nii maanaam na muy waxee wala na muy jëfee day wutee kële na muy jëfee wala kële na muy waxee mm-hmm. beneen bi tam su fekkente ne tey dafa am foo xam ni dañ faa dem mm-hmm. ñu gis ne fii dafa am lu fi xew parce que bu fekkente ne ci kër lañ ko defee borom kër gi mooy responsable bi mm-hmm. moom la ñu war woo waxtaan ak moom xamal ko li nga xamante ne nii mooy conséquences yi nga xam ne moo ko ci mën a fekk mais am na ñoo xam ne boo leen fekkee tey mhm. ñu toog nga wax jigéen ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon ñu daw dugg ca kër ga mhm. leneen lay daal di doon su boobaa mën naa jur li nga xam ne moo di ak pëccxoo ñun ñëpp ñoo bokk lu ñu bëgg mhm. ñun ñëpp ñoo bokk fu ñu jëm ndax man lam yatama sak leel ara ak li willa yeti yettu fil ara su fekkante ne tey nit ki dafa dem sax ba nga xam ne def na loo xam ne dafa dëppawut ak sharia su boobaa kooka danañ ko woo communiqué ak moom moom la imaam Maalik di wax naan fi ma ya min umrihi waaye nag wa an yatruka almasiyata mooy mhm. mooy fi mu amee rek na ji moom fexe ba maanaam li nga xam ne moom lañ koy tere te suñ moo ko njëkk tere mhm. comme moom wax nañ ko na ko lii nii kat lii kat ni nga koy defee bokku teg nañ ko war a defee mhm. kon moom dafa war sukkandiku ci baatu fi ma baqiya min umrihi mu ne kañ mu ne ko wa an yatruka almasiyata mooy fi ci ci waxtu bi nga xam ne yow leeralal nañ la information bi nga xam ne xamoo ko woon xam nga ko tey informé nañ la na la xam nañ ne lii nga def kat bokkut ci yëf yi mu ne melal ni ku duggoon ci sébb boo xam ne safaraa fa nekk nga du dugal fa sa tànk tëb dootoo ko fa dugalaat loolu mooy li nga xamante ne ni maanaam ñun ñi nga xam ne xëy na ñun drapé nañ wala def nañ nuñ war a def ba ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoom lañ fi teg ñu war a joyanti mm. bu ñu joyantee nañ xam ne ñun ñëpp ñoo bokk lu ñu bëgg di xàccandoo di dóorandoo ndax kat ki nga xamante ne ni mooy borom dëkk bi li nga xamante ne nii maanaam bugg ko ci dëkk bi képp koo xam ne nii yaa ngi fi war nga cee maanaam xar sa tànk tubéy ba yow duñ ko gisee ci yow wala ñu gis ko ci li nga xam ne moo di say njaboot barki démb am na benn waaye bu may nettali xam naa sax Maodo Ba dana jàpp ne pël ñi laay tooñ benn pël boo xam ne dafa jóge Jurbel la jóge mhm. euh, ñëw gaaraasu daara mhm. mais wàccut gars yi xool ko ci oto bi na ko yow da ngaa da ngay xeeñ nangam daal. Mhm. mu ne leen eh bu ngeen ko bañee ngeen toxal yoon wi man njaareem laa ko naanee daara laa ajjam yooyu <laughs> itam ñu ñu ñu di ci bàyyi xel ndax am na ñoo xam ne dëkkuñu fi. Mhm. am na tam ñoo xamante ne nii maanaam tey boo leen fekkoon ñu sol kap nga leen sëñ bi lii de nangam dañ koy jël dugal seen saag parce que xëy na ñoom dafa am lu leen fen yi moo xam mission la ñuy jaay ay. promotion wala yi jaay ay pièces wala nanga wala nanga boo leen informé waaw boo leen informé ñoom dañu daal di xam ne yow li nga wax kat wax nga ko ci ni nga ko war a waxee ñoom tam duñu am lenn ñu ci tontu waaye tam am na ñoo xamante ne boo ñëwee am na noo xam ne boo leen ko waxee ñoom parce que ñun bu njëkkoon ñun xëy na Touba ñu fi mais daanañ faral di dégg daal ci loxo mbaxana ci poos jigéen muuraay am na ñoo xam ne tam booba ba léegi ci lañ ci fas yéene maanaam sax ci mhm. te mosuñu cee jóg mhm. Mamadou Ba mhm. jërëjëf Kéba ñu avancé gaaw ndax euh, waxtu muy xëcc jëm ci jeex daanaka euh, euh, gis nga lu yàggul dara marché Daaru Marnaan maal bi wadd am sens doomu aadama yoo xam ne woon sax am sens ndax tànk ya ko téewoon wala pato ya ko téewoon njëkk a daal di ngir nit ñi daal di génn ci lu gaaw ba defe naa yow mi sax avant muy daanu jot nga fa dem ak say matuwaay ndax li ni mel euh, liggéey bu yàgg boobu waruñu ko fee mën a jëlee ngir installé waat beneen liggéey ndax loola hmm. bu fekkoon doomu aadama ne ci biir est-ce euh, ne suñu borom moo ci def sutura hmm. ak euh, gën a rafetal ndax bi ñu hmm. fi xewee mu ngi weqa boori 14h bi ñuy julli si lañ ñu dem xool mbir mi ñun <coughs> yàlla koy xajana moo ndax ñu taxoon def ay interview bi daanu jotee foofu la mbir mi daanoo bi ma delluwaatee si di seterment bi ma xool yëf <laughs> maanaam fi ma taxoon suuf mu li ma féete woon kaw falaa mujj taxaw di di filmer ci kaw maa ki mais euh, loolu noonu Mamadou mhm. mbiru marché yi moom mhm. lu jara jàngat la lu jara taxaw la mhm. ndax marché mooy foo xamante ni mënuñoo xëy te duñ fa dem benn nga dem fa wuti loo am wala nga dem fa wuti yóbbu ci kër gi pour waa kër gi dund léegi nag marché maal bu daaru ma naan kër bi mu daanoo li ñu la expliqué mooy dañ koo réflexionné waat biñ ko fa defee en 86 lañ tabaxoon poté yi fa nekkoon nga xam ne boobu sax béton defuñ ko xeer bu xonq lañ ko defee. Kalière biñ ko defee 86 en 2004 jàpp 2005. Mhm. ki fi nekk actuel maire moo ko réflexionné waat dafa fekkoon mu doon mbaar. seng mu xeddi seng bi def ko terrasse mais boo xoolee dal bi 10 bu mu 10 bi mu daana ba nga xool ko da nga xam ne lii buñ ne la 86 la fi poté yàlla bi mu daggee xaw na rëng-rëng ji nit ñëpp daw ñi ñun ñëpp dem gis nga suñu borom defal li muy def ba génn fekk nañ ñëpp ba affaire xew aat daar sëñ bi nag ba kan nag ku nekk ba boo déggee lu yëngu xaw ma fa mu war a jëm da nga daw génn mais booba bagage yaa nga fa am na ñoo xam ne sax xawoon nañu am confiance ba ne dañuy toogaat mais nit ñi ñoo leen ne bu leen génn délégué marché bi ñëw waa marché bi ñëw jàpp si ba ñu fexee ba génn foofu am nañu jot évacuer seen bagage am na ñoo bagage yoo xam des na ci bi mbir mi kii mais yàlla dogal na nemmeekuñ kenn ku si gaaño wala ku si ñàkk bakkanam loolu sutura suñu borom la mais li xew ba des mooy ab dañ ko war a defar Sénégal marché yi war nañ leen moderniser yoon pour bu jëyee amoon a boo xoolee marché yi Sénégal yëpp modernisation des marchés publics kañ ya combien de fois la ko état bi wax mm-hmm. est gis nga benn marché bu ñu moderniser mm-hmm. marché Ndoumbé Diop bi ñu fi lakkee ñëw nañ tabax benn xaaj léegi ñañ fa fekkoon nañ leen fa génnee obligé jëlaat ñeneen andi leen fa mais problème bi mooy état dafa war régulier bu fekkee mbir daane ci jafe-jafe ñoom waa marché bi li la wax dem nañ ci commune bi wax nañoo ak ñoom dem nañ ci préfet dem nañ sous préfet mhm. nee nañ dem nañoo dem a dem mujj gi ñoom bu leen gars yi gisee seen appel sax dañuy tiit ndax jàpp nañ ni ñii daal yàgg nañu alerte léegi ñooñu def nañ li leen waroon mhm. xam nga ki war a jooy jooy ko war mhm. mais ki war a nax kiy jooy nag loolu moo ko war bu fekkee kiy jooy da nga koy nax li nga koy naxee mooy lii problème am na si dañ ko defar mais tey jiyee jooy ji noonu am fii kerab bu fekkoon nit ci biir fan la jëm te balaa sappoor dugg sax. li mais keroog mu daanoo ñëw na fa ba si biir mais amul fu mu jaar ak otom pour yegg si bu fekkoon tàkk-tàkk la it fu mu marché yi si boppam lañ war a defaraat mu am ay yoon yoo xam ne nii saret mën na dugg oto mën na dugg nit su buggee dem jënd ji mën na am fu mu am accès pour dugg mais marché bi moom bu ma duggee kër nekk naa fi man marché mal mosuma fa yegg mais kër ma demee gis affaire bi dama ne non lii moom c'est kii moom doon loo xam ne il faut que yi sax dañ ko war a tabaxaat di ko di ko xaajale mhm. ñiy jaay jën nekkee fii ñiy jaay tiisi nee fii téer nee fii loolu mooy tax bu yëf yi modernisé wu mhm. ñiy jaay alimentation nee fii kii di jaay yàpp kii di jaay jën tawee sax boo fa nekk nekkee yow bu fekkee sa kii tuuti da ngay dem mujj gi mën na andi kii sa yaram. mais est-ce que alerte ci ci ci. non lii moom alerte la. waaw ndax gis nga démb euh, reportage bi nga def fële ca marché démb gis nga ñoom it dem nga ñu indi la ba ci maal bi wan la lii nii bu jëyee amee la am daaru mën a mën dem ba am fii. lu ko raw sax parce que foofu waxuma la kii dénoncé nañ ko ay yoon yoon Jabel Fall dénoncé ay yoon yoon ndax foofu karo yi maam fi ne ni dañ ko dër mu ay kàmb muy marché dégg ba dégg ba mu ngi am ay kàmb nga xam ne la jigéen da ngay gis lu naay nii bay daanu loo xam ne dañ ko tabax raaxuñu ko mu ngi daanu nii jëm suuf affaire bi lu am na loo xam boo gisee da nga xam ne lii mm. te marché la bu yaatu boo xam ne bu ñu ko moderniser woon tey defar ko ba mu baax damaa demee nekk fa di liggéey ñu jógee gaar ñu rek te duñ liggéey mm-hmm. menn maire mënuñ la dénk marché donte ko fayee ko juute mais yaa ngi fayee ko patente yeneen tax yaa ngi dugg si dëkk bi nga ci kii waaw li ngay am foofu noonu nag il faut nga xàcc pour defar boo defarut nit ñi am na loo xam ne boo ko defaroon tey loo fayeeku nit ñi mën nañ ko fay mais fekkee defar gi ci war amul après man boo bëggee fayeeku leen bi te marché ba dafa mel ne désordre sax moo may gënal bu fekkee da nga ko moderniser bëgg ma fayeeku ma ko mën a fay hmm. tàmm nga bàyyi ma sama kaar mbaar moo xam ne nii xott seng fii kii fii bu lakk jotee mu lakk marché Ocass lu ko fa jëlee nit ñi lakk yi mu fa lakk lépp courant ko taal ñoom ñu xam ne ne courant ko taal mais problème bi mooy bu courant bi jàppee ba tàkk hmm. fi muy dal ay mbaar la mbaar yooyu bu ñu ko moderniser woon nit ñi mën nañ fee ne mhm. nit ñi di dox ci marché bi bu lakkee jafe-jafe googu du am et puis première lakk nga fa amoon 2020 xam nga 2019 booba corona ñëwagut yaakaar nañ jeexantalu 2019 xam nga depuis 2020 bi bi affaire bi amee man bokk naa si ñu fa njëkk sappoor boobu sappoor bu tubaab bi amaguñu ñaari ancien yi mu mujjee yor nii bu màgget ba la ñu yor mel ni setar la mhm. waa ji bi mu ñëwee di lancer lance boo ko téyee sax munta kii romb fi nga ne tuuti la def ndox ma jeex ñu obligé keroog sàpporu Bambey bokk na si fi njëkkaat bi ñu woowee renfort léegi loolu nag problème boobu ñun amuñ yenn moyens yi nañ defar marché boo ko defaree bu ko defee bu jiyee amee nit ñi dañ mën a woll si sa teel te et puis boobaa jiyee jooju sax dootul mën a am parce que nit ñi bu marché bi setoon tey liñ fi indi maa nga si Auchan tey Auchan am na Mbàkke gis naa yeneen place yoo xam ne ñu ngi fay tabax nee nañ osan la léegi bu fekkee ñun permettre nañ jox leen lieu bu baax mhm. defar leen tabax bu baax ñuy jaay ba pare te ñun ñu dëkkee si dëkk bi mënuñu permettre ñu am bërëb bi baax yée tam bu nit ñi bàyyee fii dem si osan yi boobaa suñ maire yi nga xam ne ñoom loolu lañ yaakaar ñoo ciy gën a sonn rek jërëjëf Sowru gis nga li teg teg nga sa bët mooy li am marché daaru maanaam lu yàggu dara muy maal bu daanu ndax loolu jotul ñu daal di jële yi xeetu liggéey fii indi fi yeneen liggéey ndax li mel bu màbbee fekk fay doomu aadama loolu bakkan yu bëri ñoo ci rotte yàlla tere li ni mel est-ce ñu xoolaat marché yi nekkee ci dëkk bi mooy yu mag yi ak yu ndaw yëpp. waaw euh, comme tey ni ko waxee. <coughs> barki démb gis nañ ko ci marché bu Daaru Marnaan. Mhm. mais boo xoolee 1986. du démb du barki démb. du démb du barki démb. maanaam tey mii tombeek gis nga carrière bi nekk nekk fii ndokk ak bi nekk fële ngay maam Balla. Mhm. jamono boobu la ñuy door a ubbeeku ñu ko door a gas. carrière mooy xeeri xonq yi xeeri xonq yi maanaam euh, ñu ci tibb nga xam ne marché yi nga xamante ne ni tey ñoom lañ fa doon defar nga xam ne ay mbaari nga fi nekkoon ak yooyu ñu def leen ci modification. Mhm. te booba it dose bi nga xam ne moom lañuy def comme ciment. Mhm. booba mason yi nga xamante ni tey. ñoo fi nekkoon ak boo xoolee mason yi yaa fi nekk léegi. yooyu amuloon compétence maanaam déedéet parce que benn daawuñ xool nan lay nan lay garanté li ñu xool mooy mbir mi nan lañ koy defee ba maanaam nit ñi mën a delluwaat ci seenu. liggéey mais mais gudd na fan ndax 86 du du du ko sànq ni. gudd na fan mais tam saa demee ba nga xam ne ba nga xam ne signalé na parce que tabax bu ñu màggat moom loo ko càkk càkkal ak loo loo yekk modifié modifié mm-hmm. li li muy mujjee rek mooy daanu. daanu googa nag avant avant ñu di ci àgg am na ay ay signes yoo xam ne doon na ko joxe mal bi joxe na ko doon na ko joxe mais est-ce que ña fa dox nañ jéego ngir alerté ji ko non duñ ko ko mën a jox xam nga lu tax mhm. marché dafa am noo xam ne noonu lay doxee parce que tey marché boo dem tey ancien ya nga xamante ne nii tey ñoo ya fa nekk place ya doon ay mbaar wala mu nekk ak i seng tey bu nit ñëwoon jógee fii jógee fii jógee fii ba cil ma xam mbaakol mhm. ñëw na leen marché yi ka dama ko bëgg a moderniser ñoom bu ñu waxee waaw mhm. mën nañ leen wax na leen gën leen ay quelques jour wala ay quelques mois ñu defal leen ay cantines yu bees wala ñu tabaxal leen waaye suñ ko tabaxee ba pare ñoom ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon maanaam prix ba nga xam ne moom lañ moom lañ moom lañ leen cee wax mhm. duñ ko àttan parce que am na ci ñu bare bare bari ay jigéen lañ ñoo xam ne ñoom li ñu xëy di jaay lépp lépp lépp boo xool ay 4000 francs la wala ay 5000 francs mhm. kooku boo bëggee ne léegi damay moderniser sa marché bi mhm. defar ko ba mu mel ni mu war a mel léegi nag fekk moom am nañ marché yoo xam ne tëb daal la ñu ko doon wax gis nañ ko fi nga xam ne tey bi ñu waxee ne yéen jóge leen fii ñoom ñu ne léegi bu ñu jógee fii fan lañ jëm ñu ne leen dem leen te barab sàngam ndax marché bi barab sàngam lañ koy toxol kenn ku ne dem samp sa bant wut sa bant yi paftoon samp na man jàpp naa place jàpp googa da ngay foog ne maanaam yow comme amoon nga fële place maanaam yow buñ ñëwee amul lenn loo xam ne daf la ciy war mm-hmm. mais buñ ñëwee dax naa la kan moo samp fii nga ne man ñu ne fii kat nangam moo la fi war su fekkente ne mënoo ko wala sa saxaaru poste àggu ko da ngay mujj seen perte say bant gis nañ ko fi ci gis nañ ko gis nañ ko fi ci marché yu bëree bëri léegi nag marché bu daaru marnaan bii mhm. li nga xamante ni maanaam moom la ñu war a def mooy defar mhm. ndax bu fekkente ne dañoo dem ba nga xamante ne ni tey marché bi comme ni nga ko waxee bi a fi jiyee ji dégg naa sax ci yenn information yi bi affaire bi demee ba daanu biñ ñëwee mënuñ laa jox benn information na la ndax am na ko ci faatu wala amuñu ko parce que booy déglu dañ naan la am na xale yi fi romboon waaye ba léegi xamuñ ba xam dem nañ wala dugg nañ ci biir ñi nga xam ne ñooy sappoortam bi ñu ñëwee indiwuñu yan matuwaay yoo xam ne mën nañ ko jël jéqar bi affaire bi ba xam dëgg-dëgg psychologiquement lan moo xew mais dañuy ñëw sol seeni dàll di wër di kii nangam sànga affaire yooyu est-ce que am na fuñ jaar am na fuñ am nañ bu non fekkente ne amuñ fuñ jaar dañu bañ a mën a dugg ci marché bi mais bu fekkente ne ñëw nañ ba agsi ci li nga fi nga xam ne fi la jée ji xewee mm-hmm. lan moo des mooy matuwaay yoo xamante ni mooy liggéey affaire yi pour ñu xam psychologiquement mm-hmm. ndax am na lu ne ci biir wala amul lu nekk ci biir yu mel noonu dañ ko war a bàyyi xel bëgg démb gis nañ ko ci marché euh, ban euh, daaru euh, daaru tansil marché dégg waaw marché asi dégg ba nga gis ne maanaam ay image yoo xam ne yow boo ko seetaan sax yow da ngay mujj di am dut naan lii est-ce que la que lii Touba la ay pafton yu nekk ci biir marché taa nag soriwul dara ah. soriwul dara fii garage ji daanaka waaw yoon woo xam da ngay dox ba mu yàgg mu jeex nga xam ne da ngay dox ba yàgg sax ci biir yoon wi nga daje ay ay ay kii xaj ay xaj yu yoo xamante ni dañuy yet nga daw ci biir marché bi ah loolu lépp bu leeroon ñu ko defar ko ba mel li nga xamante ni noonu war a mel polu mbaliñ sax amuñu ko ndaxte ñu ngi ko doon réclamer yoo xamante ne ñoom ndax ñoom nee na ñoom ak mbaliñ mi ak bopp jëne génnu jëne muusi yëpp a bokk di ok Ah, am na koo fa xam koo xam ne nee na da ngay toog sa place di jaay xaj dàqe dàqem dàqem muus ba mu ñëw dugg la xam nga yooyu dafa nekk yoo xamante ne nii dañ cee war a dañ cee war a di bàyyi xel di defar parce que marché yi nit ñi fa lañ nekk di dem di yaxantalu di góorgóorlu waaw ñu bàyyi ci xel lu baax a baax après lañ gën a man ka taxaw dafay am noo xamante ne tellement que boo koy gis sax yow booy dem sur le lieu boo ko wax autorité yi ñu am ay kilifa yoo xam ne nii. Mm. gis nga buñ taxawee ne dañuy réguliser marché public dañu def nangam taxaw ne dañuy moderniser marché yi mais après nu muy demee da ngay toog ba boo fa waree ñëw tey jii nii gis nga. am na démb ku ma doon waxtaan mu ne ma ah, man dama gis temps yi ñuy defaraat dëkk bi gis naa yenn yoon daal ñu commencé kii ma ne ko ah dégg naa war a xaar ba autorité bi waree ñëw ñu ñëw defar foofu ba mu baax parce que daloon na fi la président Macky Sall ba mu waree ñëw inaugurer hôpital waaye ñëw manque ndox mi newoon si yoon bi te yoon inondation am na de manque ndox mi fu newoon ci yoon bi dañoo par rek yàlla ji taw président ñëw xool si ndox mi jàll gis nga loolu lañ war a ba nañ fexe di defar gis nga marché yi nii wallaay naa si bu ñu ko defaroon ñi fi nekk ay ndaw lañu ay xale yu nangoo liggéey fi ne mhm. marché boo fi ne ay jigéen ñi ngi fay fekk deux heures la ñuy xëy wala quatre heures quatre heures maire yi nee nañ nii dañuy wàcc dem gont wuti ji jën ñëw depp ko seen kër parce que mënuñ ko noonu ñu jàll bu ko xëyaat fajar ñëw nekk fa ba 2 heures si bëccëg te pourtant nag yéen fi ngeen wàccee ah. amuñu yoon yoo jaar pour yegg fa boo duggee si marché amul yoon boo jaar pour dem fa da ngay gis nit ki place am buñ ko defaroon ne ko li ngay fay kenn sañu te ñëw teg si buntu ba gis nga dëkk il faut ñu réguler mbir mi mm-hmm. defar nag du yomb mais autorité war a defar mm-hmm. tey ji marché Ocass lakkee ñaata marché fi ne woon ñu ne dañ ko moderniser gis nga fi si marché bu ñu ci defaraat yow gis nga ko gisoo ko wax lay doon rek mais warta yem ci ay wax parce que comme tam li nga wax sànq ne comme su amee benn autorité boo xam ne dafa war a ñëw kon mën nañ ne nemmee ko nañ ko parce que boo xoolee deux vents yi jógee euh, jógee fee tali di ñëw ancien ancien kii bi kii bi garage bi liñ nekk ci màggal gi yëpp ñun ñi nga xam ne yoroon nañu oto di dawal benn vent bi moo doon dox barki démb am gis nañ ko nag defaraat nañ ko mais daanaka nag tali amatu fa parce que boo fa jaaree ban baa ngi jóg maanaam mu nekk jël loo xamante ne nii ay mbir la yoo xamante ni à chaque fois dañ koy ya ko ci dëkk bu sell bi nga xam ne moo di Touba xaw ma nag mooy problème bi mais psychologiquement war nañ ci jéem a kii ba nga xamante ne maanaam mbir mi dana nekk loo xamante ne nii ndaw yi fi nekk comme ni ko waxee tey boo yeewoo 4 heures du matin ay jigéen ngay gis ci ci ci kaw tali bi ñu teg ay paan këpp ko di toog di xaar lu leen yóbbu tëj na liggéey rek moo leen ñor mais gis maal bi nga xam ne mooy marché bu mag ba hmm. boo fa demoon ba yegg fa bu tawee ba pare ñi moo dugg ci biir pour jànd problème boobu ngay am dañu obligé jaaykat yi nit ñi duñu leen fekk foofu ñu obligé waat yenn seeni bagage ñëw ci kaw tali bi loolu mooy provoqué maanaam nit ñi di bàyyi place yi di ñëw ci kaw tali bi nañ defar marché yi defar ko ay yoon defar ko yooni ndox bu tawee ndox mi génn nit ñi am fu ñu jaar ñëw jënd ci gis nga ndugg mi ñuy lekk nii nga dem fekk ku teg nduggam boo xam ne daanaka yàpp jën yi kii jën yi rek nii ndox yi dajee foofu noonu tellement boo fa jaare man temps bi bi waa jeex jaar naa biir marché Ocass mu taw ba si biti benn waaye dama yéen lii du ngeen si wax ma ne ko wax nañ ci ba sonn na <laughs> ma yéen ñëpp gis nañ gis nañ gis nañ nañ ak tayef waaw ki nga xam ne mooy vétérinaire vétérinaire bu tayef oto yi dañ doon fajaroo ci domaine bi ah domaine bi ah, di yeb jën di yóbbu a ko dañ mujj jël ko xëppi na jën dañ koy dañ koy tuuri dañ koy jël tuuri ko waaw lu mat lu mat semaine te loolu noonu jën yooyu laaj naa di benn paa mënuma depuis 1966 ba léegi ñoom oto oto yaa ngi ñëw oto yi nga xam ne ana ñooy ñëw seeni parents ñoo doon ñëw dem ba mënatuñ seeni doom amee ko mm. ñoom am nañ problème boobu nga xamante instant bii nii maanaam jën boo xamante ne nii jóge na dañ koy jël xëppi ko ñoom tam ñi ngi nekk nekk di yuuxu di wàllu ci ñi nga xamante ne nii maanaam parce que bi bëgg nañ daal am ci lu leer ba xam ne lan ah, ngi xàll def est-ce a dugg nga a di ko wutalaat moom léegi yàqu mm. defar la ñuy askan bi ñu ngi dëgër péer ñoo nekk si yoon pour nee nañ bii li mën a dugg pour daane la fa des balaa daane ci kaw nit ñi pour mën a évacuer suuf boobu mën a kiyaat mais maa la ko wax fii ñu ngi ci lan vendredi 20 octobre léegi defar lañu wax après élection 2024 yii bu amul sens du fekk sax ñu tegu xeer waxuma la ak di dal. kon ñañ na ci ko yoon ñooy mujj di galère obligé boo amul sens si kaw tali bi lañu ñëwaat wala ñu fexe gis naa biir marché bi fii nu mu tudd ancien garage fu njëkkoon ne mm-hmm. gars ngay que da bul fàtte ba dañoo obligé dàqewaat leen pour ñu dugg lu ko waraloon ba ñu bëri garage bi lañ nekkoon mm. lii ko waraloon bu fekkee fi nit ñi war a toog mm. pour liggéey mënuñu fa kii wala boo fa toogee mm. day salte ba client yi duñu mën a yegg si nit ki nag fu muy jaaralee rek lay bëgg day obligé dem fekk ji jaaykat jëndkat rapidement ñu soobu ci politique bi muy mandataire Ousmane Sonko bi di Ayib Daffé démb demoon na si direction des élections tey mu delluwaat fa waaye dafa mel ni mbir mi euh, fam toogoon ba léegi euh, dugeegu fa maa ngi woy di woo kong si ñoom ndax li ni mel ko def détail politique wala bëgguñu ko jàppee mbir politique Keba rapidement. waaw xam nga da ngay dégg ñoom ñu faree ci pouvoir bi. Mhm. da wax ne dañoo war a respecter justice. ñi mhm. Sénégal toujours ñuy wax ne niil na ignorer pas la loi maanaam nit ki yow nga jàng nga jàngut da ngaa war a xam loi bi. Mhm. ñoom ñu wax ne décision justice dañ ko war a respecté. ba ma président waxal ko ci président wax ko. ba dat na discours bi mu def xam ne ne du bokk. kon yoon moom danañ fexe ba respecté ko ci réew mi. yoon bu jëmee ci kotam la. moom laay ñëw ni moo ko waxoon. <laughs> léegi bi ñu demee tribunal bu Ziguinchor. Mhm. parce que Ousmane Sonko Ziguinchor la dëkk. mooy maire ba fa lay watee gis nga élection bu jot fa lay defee déclaration am Tabaski fa la koy defee Korité fa la koy defee. Ziguinchor googee tribunal ba siis bu tudd Sabassy Faye. moom la yàlla dogal këpp yelwaan sax amuñu ko parce que la décision. de justice non loolu commentaire politique la. man nu ma ko jàppee dama jàpp ne moom. gis nga léeg-léeg sax nga dégg Sénégal ku naan le juge dafa war a àtte si intime conviction am déedéet xam nga àttekat waroo àtte sa conviction xam nga li war a àtte. Mhm. texte yi ak loi yi lii la yoon wax si la ñuy tënku ñu àtte ci. Mhm. mais conviction doomu aadama bu doon lu lëkkale duñ tënk ay kii. def ne article sàngam lii mooy délit lii mooy euh, infraction lii mooy crime nangam nangam. Mhm. léegi nag biñ demee. DCE. sa waay njëkk na fa dem bi ñu joxe fiche parrainage ci 29 septembre. Mhm. ñu ne ko sa candidat duñ ko mën a jox ficheem ndax nekkul ci liste yi. Mhm. ñëpp ne lii DCE def du yoon. Mhm. ba bi ñu yóbboo seen recours sa Cour suprême. ki nga xam ne mooy ndax soxna si euh, Diop. madame Diop daf ne liñ teg Ousmane Sonko du yoon. ñu demaat ñoom mais li moom moo wax loolu de. ne ñu teg Ousmane Sonko du yoon mais nanguwuñ koo jox dëgg danoo bàyyi mu sedd ñoom avocat Ousmane Sonko yi dem tribunal bu Ziguinchor. 6 tribunal ñu dem suuru àtte ba kañ lañ commencé 9 heures si ba 22 heures verdict bi wàcc wàcc ba pare d'accorduñ ci léegi beneen bi ci tegee ascenseur de temps nee na day réquisition siis bi maanaam day dàq siis boobu wartuta bokk ci ñiy àtte te yoon def ne bu fekkee da nga bëgg a réquisition siis loolu yoon may na ko de mhm. maanaam boo d'accord siis bu la war a àtte mhm. da war a bind avant procès bay xew avant audience bi ah, avant audience bi mais ascenseur de mooy kii fi toogal yi état mhm. ngir war a moom indi layuk état bi ngir layal ko mhm. mu ne da koy réquisier benn bi ca tegee ñu ne compétence tribunal bu Ziguinchor amul compétence su àtte ko dañ ko war a jëlee Ziguinchor indi ko waaw si moom laa lay wax ni ko Dakar maanaam wan ne ñii amuñu argument mhm. argument bi ñu am mooy mhm. élection yi Ousmane Sonko bu ci bokkee mun na koo gañe kon du ci bokk mais amul benn décision boo xamante nii mais yoon moom moo ne yéen ñii da ngeen rajo Ousmane Sonko ci liste électorale yi fi ngeen ko jaarale base juridique boobu normalu te baaxul delloowaat leen Ousmane Sonko ci liste yi mais ñoom ca ndee gis na benn kii bi ñu wax ne tey L'Obs bind na ko l'observateur nee na li ñu layal démb bi fa sawaay demee ne duñ ko jox fiise bi mooy sawaay ba tey intégré wuñ ko ci fiise bi léegi nag bu fekkee intégré wuñ ko ci liste électorale yi ba tey moom Ousmane Sonko te dañ ko see te bu ñu ko see dindi notification bi waroon ñu joxwal ko Ousmane Sonko pour mën a attaquer mbir mi ci yoon parce que yoon duur ay wax ko wuñ ko ko nee nañ hôpital principal lañ ko yóbbu mais Ousmane Sonko mu ngi suivi xotaan yaa ngi ko tëj. journaux bëri nee nañ daan nañ ko. ay wax la gis nga dëkk bi ñun waruñ fee ne ñiim taskati xabaar yi naan ni nii ak nii gis nga mbir mi nañ koy teg ci yoon yoon daf ne. bu fekkee nit ki dafa am nit problème yoon jàpp na ko boo koy notifié benn notification mhm. da nga ko yóbbu administration pénitentiaire ki nga fekk mën jiite kaso bi mhm. boo demee nga koy jébal chef bi boo ko joxee moom xam na nu mbiri demee ku ñëw mhm. bu Ousmane Sonko ñëwee mu jébal ko kayitam mu xool mu jox ay avocat am ñu attaqué mbir mi sa yoon mais ñu ko ko fañ lañ ko fekk bi ñu demee agent bi ñu fekk agent pénitentiaire bi ñu fekk euh, fële ca hôpital principal daf na leen amuma sañ-sañu jël ko ndax man sama supérieur bi ma yebal fii lim ma sant mooy surveiller un prisonnier bu nekk ci hôpital ñu war koo faj loolu moo ko fi indi mais waru fa jëlee benn kayit yóbbu leen ko Sébikotane pourquoi ñu ne duñ ko fa yóbbu mais liñ doon daw bu ñu ko yóbboo Sébikotane dafa ñu àttoon Ousmane Sonko par contumace Conte Maxi boobe nag yoon daf ne boo jàppee nit ki parce que ba nga koy àtte da nga ne gisoo ko wala mënoo ko jot mhm. boo ko gisee euh, léegi buñ ko yóbboo bu ko tegoon loxo rek Conte mhm. Maxi boobu day daanoo mhm. te léegi bu Conte Maxi bi daanoo ñoom mënuñ ko génne si liste yi parce que léegi looloo tax mbir mi demee noonu mais li am nii du décision justice jaay doole la yaa ma neex la teguñu ko fenn mm-hmm. du ci luwaa du ci lu kenn xam te lii nii mm-hmm. ñi nga xam ne ñoo gëm dëgg gëm yoon mm-hmm. ñoo war a xeex pour mbir mi jeex tegee ci yoon Ousmane sonk bu waree bokk see ci élection yi nañ ko jaarale ci yoon mu bokk su warta bokk ñu wan nit ñi motif bu leer bu keleer ka ne kii warta bokk ñu xam ne lii moo tax Ousmane Sonko mënta bokk ndax Ousmane Sonko nit la comme ñëpp warta doon koo xam ne nii na dessus à la loi maanaam nit ku nekk waroo féetee kaw yoon mm. ba si le président Macky Sall conseil constitution bii nii mm. moo ko féetee kaw donte ka moom mooy la gardien de la constitution kon bu fekkee nit warta ji féetee kaw constitution mm-hmm. kon yow war nga fexe ba respecter ko ak xam ak yelleefam léegi nag loolu mooy tax régulation bi ñu war réguler mbir mi mm-hmm. ñu tegee ko yoon DCE li ñu nekk nii mm-hmm. du dëgg tey du dëgg suba dañ ko teg ci mbirum politique DCE waroo fee toog pour politique ab arbitre du far arbitre boo faree koy arbitre rek mais loolu moom tamit nañ bàyyi jaaxal arbitre sawru sawru dégg nga lii Keba ah, ah, Sonko bi dem na direction des élections ba tey mbir mi dafa toog fi mu toog amul bougé wu dara ndax li ni mel la est-ce que politique wuñ ko rapidement non man bu ngeen waxee sostis dafa may jaaxal sostis laa koy tuddee ndax la sostis dañuy sos waaw dañuy sosal nit aw awtiis ndax la ndax li tax mooy mhm. bu fekkente ne dafa am kenn koo xam ne mhm. dafa nekk leader politique mhm. ndaw yi daw wuti ko. Mhm. yow sa problème bi yëpp mooy kii kat su bokkee bu ñu demee élection 11h la carte gi di leer yow léegi danga ne. Mhm. man waxuma ne fii laa ko teg waxuma ne faa laa ko teg ne damay jéem indi rek aw lay ba moom bu mu bokk. boo dégloo du Doudou Ndoye. nee na moom bu fekkonte ne moom dafa am leneen lu bees loo xam ne moom lañu indi loo xam ne moom xamu ko woon wala jàngu ko woon su boobaa au moins mu mën a xalaat ne xay na noonu la waaye nee moom ci li amu jàng ak li nga xamante ne nii moom la xam gisu ci lu mën a tere bokk Ousmane Sonko ci li nga xam ne moo élection yi kon loolu leer na yeneen yi ciy toppaat nag ay détails la mhm. barki mu dëgg lañ kii kii dama jàmbal naan ay Ousmane Sonko da doon tappale da doon nangam da doon mais man dama ko jàpp ne moom wér na ma jàmbal waaw est wér na moom ndax la tax ma ne wérul mooy boo xamee prison hmm. soo fa nekkee say xarit mën nañoo ñëw seet si la sañ nga dem entraînement sañ nga def say activités yu bëree bëree bari sañ nga ko def sañ nga sañ nga jógee fii jant bi rek lañ la làq waaw sañ nga jógee fii ci biir sambur bi dem ci sambur bale naan fa ataaya parce que am nga fa say xarit am nga fa say nangam léegi nag fa nga xam ne mooy hôpital ba nga xam ne yow sa wàllum wér-gu-yaram moo gëlagoo sa ba tax na ñu yóbbu la fa hmm. soo tëddee benn lampe bu mag moo lay tiim day tàkk guddi ak bëccëg suba ak ngoon te am na benn affaire boo xam ne comme sonnerie la day continuer di sonné guddi ak bëccëg suba ak ngoon te yow ki nga xam ne mooy médecin bi cinq heures temps lay am pour ñëw ci yow kon loolu naka la ko nit di mën a tappalee di dem fale ngir daw fële kooku dama yaakaar ne moom li li ñu wax naan dama yaakaar ay xaram moom kii kii siwuñ naan siwuñ moom ma jambal waaw ma jambal ma jambal li moo expliqué maanaam daf ne état du Sénégal amul volontaire Ousmane sonk ma ne fële ca euh, kii hôpital. waaw principal pour delloo ji ko ndax chaque jour. li muy coûté état du Sénégal toll na ci cent cinquante mille francs près de deux cent mille loolu ci poche état lay jógee te état alal ji ñun alal la ñun mais gis nga lim ko bugg layalee bugg a jàpp ne Ousmane Sonko ci caaxaan ak tappale ne loolu moo dul lay gi Ousmane Sonko moo fa yóbbu boppam wala déet Ousmane Sonko dañ ko yóbbu woon prison bu si bexotaan biñ ko fa yóbboo mu nekk grève de la fin ba am malaise ñu jëlee ko fa yóbbu ko hôpital ba mu dem réanimation maanaam koo xam ne dañ lay monter machine pour nga mën a. waaw léegi loolu bu dee moom complot moom la koo jàppee xanaa moom ñi nga xam ne ñooy médecins yi ñoom la bëgg a teg tuuma moom. maanaam moom ñoom it mais tawal ok ba est-ce que ñoom médecins yi ñoom it génn nañu seen yoon nekku ci loolu médecin yi amul temps commentaire ci waxu ab taskatu xabaar médecin liggéeyam lay def ndax ñoom médecin bi ñu déedéet mënoo leen tuuma moom état du Sénégal du tuuma parce que dafa jàpp ne état du Sénégal li mu bëgg expliquer moom ma jàmbal mm. mooy état du Sénégal dafa wane faiblesse am ci kanam Ousmane Sonko te il faut ñu xam ne Ousmane Sonko mii état jël na tous les moyens sont bons pour combattre Ousmane Sonko mm. ba tey moo tax mu daaneel ko daaneel gi ñu daaneel Ousmane Sonko nag ba tey jii boo gisee dal ak jàmm mu am si dëkk bi mm. nañ santaat yàlla bu baax mu am ndax li tax askan yu topp Ousmane Sonko jàpp nañ fii ak élection yi Ousmane mii bu jàmm rek amee dina bokk ci élection yi te bu demee ci élection yi ñi gëm ànd ak moom gëm nañ ne mun na gagné élection yi loolu moo tax mais bu leen wóoroon ne la ko xa 2021 bañ ko bëggee jàpp lu tax askan wi génn joxe seen bopp ne duñ ko jàpp parce que jàpp nañ ni kii combat bi mu bëgg a mane bu ñu ko téyee léegi teg ko ci pression bi bala ñu yegg ca élection Ousmane Sonko mii combat boobu dana yàq Ousmane Sonko danañ ko perte moo taxoon ni ñu génn mhm. bi ñu fi xewee mois de juin bi ñu ñu bëri ne dal daam mais am na ñu si ñàkk seen bakkan am na ñu fi teg loxo ba tey ñu ngi ci prison bi kon euh, euh, baal ma ma yëgali sawru sawru kon lan nga yaakaar ne moom mooy euh, saafara si nu ma gën a gaawee ñu jox ko fii de parrainage wala ñu daal di koy lijjantiwaat ci yoon saafara gi ñi nga xam ne ñoo war a wax te am nañ am nañ am nañ am nañ kàddu mhm. ñu wax ak ki ñu war a wax te man su ma doon conseil tey Macky Sall mhm. parce que teel a teel a kii teel a nangu mhm. day yombal ay dóor ndax instant bii nii fii jamono toll. Mm-hmm. bu gënoon tey def déclaration na man tey mbir mi xool naa ko ba xam naa ne maanaam li nga xamante nii fa lay jëmee a réew mi. Mm-hmm. du ko jar parce que bu ko neexoon mu teg ci coñcoom parce que am na ci ay dossier yoo xam ne moo waxal boppam ne maa ci teg sama coñc. moom président la waaw kon léegi waroon na wax ne léegi kon Ousmane Sonko mm-hmm. nañ ko bàyyi mu dem élection bokk ci élection yi comme ni ci ñëpp bokkee. parce que tey position bi Ousmane Sonko toll. am na ñoo xam ne suñ fa tolloon tam li Ousmane Sonko dund mhm. moom la ñu dund te tey su ko defoon it dana am ñenn ñoo xam ne mën nañ ko sant gërëm ko ñi nga xamante ni xamuñ psychologiquement lan moo xew waaye mhm. li nga xamante ne nii man moom laa gëm mooy ñi war a wax nañu génn ñu wax ak moom bu fekkee mën nañ ci dara wala ñu waxaat ak ñoom mhm. ñu waxaat ak moom ba nga xamante ne nii maanaam mbir mi danañ ko tekki yoon parce que parce que ndaw yi combat bii nii ñu porté maanaam ba ñu ci dara parce que Ousmane Sonko même am na ci ñoo xam ne sax bu ñu dem bokk ci beneen parti di wër prénance dañuy dem ci garam place boo xam ne bu ñu demee duñu waxtaan ak ñoom parce que baransan yañ fekk ñu takk mu nekk Pastef mooy tax dañ leen a romb romb romb jàll réew même nag bu ñu bokkee takk benn plaque nga xam ne ñii diw la ñu xaar mhm. yow muy wër prévenance far feneen sax lijjanti wuñ la wala booy wax ak ñoom sax yow jàppewuñ la doomu aadama kon su boobaa su collectivement yow mi nga xamante ni yow yaa nekk yaa nekk ak njiitu réew mi war ngaa xooraat li nga xamante ni moo di mbir mi ba kàddu yeeg doon benn ñun ñëpp di xàccandoo doon loo parce que Sénégal ñoo ko bokk te mënuñu koo mënuñu koo mënuñu koo jël xaar ko il faut kon ñu koy penco bokk ko defar ko waaw ah. jërëjëf rapidement Keba mel na ni dëkk gars yi da ngay dégg dëkk bi dafa dëgër mais dëkk bu dëgër bi dafa mel dafa dem ci ci langue politique ndax gis nga temps yi euh, homme politique yi ku ci nekk di génn naan euh, euh, ku ci mel ni Pape Djibril Fall wala bokk Abdourahmane Diouf ndax lu yàggul dara génn nañ wax li ni mel état bu Sénégal waru cee suubu ndax li ni mel doonut loo xamante ne ni mbir mi Ousmane Sonko da koo téye dara doxub loi sax terewut ku am treize député nga dem wuti parrainage citoyen dañ ko def maanaam pour lu facilité li nga xam ne ñooy kandaay yi rawatina ñi xam ne am nañ ay élus ci ensemble wala ca li nga xam ne moom mooy mairie mhm. pile de quatre cent nangam maire boo ko amee maanaam jaratut bu la neexee nga bañ a dem ci askan bi pour wuti parrainage citoyen man ngaa dem wuti parrainage élire comme kenn koo xam ne ab conseil collègue kii nu mu tudd ab conseil maire la wala ab maire la xam président départementaux yi wala nga xam koo xam ne ab maire la mën nañ la parrainer mhm. boobaa nga bu dee député nag boo gisee ñu def ko treize parce que député li mu porté moo bëri mhm. ndax député boo xoolee ñaari département yi trois député la ñu am mhm. département boo xam ne plus da ay 40 nangam mille personnes ñoo fa dëkkee ñu am trois député dafa am lu ñu te ñoom ñoo ne ci penc ndaw réew ma te foofu mooy deuxième instant euh, léegi li gars yi wax nag euh, mooy mbirum élection yi lii moo lay xamal ne élection 2024 yi mu am te Ousmane Sonko bokk ci c'est pas facile fii ci Sénégal. ndax la état bi xam na ko ñi ànd ak moom xam nañ ko opposition bi xam nañ ko mais problème bi mooy. Mhm. ñi bëri ci opposition bi dana njort ne bu Ousmane Sonko bokkee. Mhm. du seen avantage. day gagné élection yi état bi jàpp ne Ousmane Sonko bokkee mun na gagné élection yi te moom Ousmane Sonko donn Macky Sall ci nguur gi moom. Mhm. du bëgg-bëggu APR du bëgg-bëgg képp ku ànd ak Macky Sall li ko waral mooy. lu usman Sonko lu ko dal lépp ci politique ak coono. Mm-hmm. nguuru Macky Sall moo ko teg. mais est loo tax ñu. xaw dina fayantoo wala du fayantoo mais li ko dal ci coono lépp ñoo ko teg ndax Ousmane Sonko nekk na impôt ak domaine fukki at ak juróom 2014 la taxawal parti 2016. président Macky Sall rajee ko 2016 2017 mu dem Assemblée nationale. plus fort reste. 2019 mu bëgg pouvoir bi ensemble bi mu fa demee mel nam sël mooy ka fa nekk mel ni ku yor groupe parlementaire te député non inscrit la woon fekk fa ay groupe parlementaire booba liberté démocratie muy PDS ñu ngi fa am seen groupe parlementaire mais benn kàddu Ousmane Sonko day ëmb yëpp dem na ba moom Ousmane Sonko mu taxaw ensemble di wax ñu génn bàyyee ko ensemble ba mu def discours ba dafa mel ni ñoom sax discours boobu sax moo tax ndax ñu bëri seetaan yoon mbir mi mhm. te li mu wax yàlla dogal na ko moom lépp lu mu wax da ko doon argumenté mhm. bi mu ñëwee si la sensé waat bi mu waxee ne député yi duñ fay impôt 1500 la ñuy fay te mënuñu jël 1 million 300 di ko fay député di ko jox carburant di ko jox 150 mille muy vidé oto muy fay 105 muy 1500 impôt te mbokki enseignants yi ñu leen dagg 18 pour pour cent ci impôt loolu dafa jàpp ne lu normal la te donte que dañuy liggéey askan wi ñuy leen di fay sa xaalis dañu war a fayaat contribuable euh, réew mi dañ cee war a contribuer ndax ñu mën a liggéey réew mi li xew ci parrainage bi nag Mamadou ña daan wax mbir mi léeg-léeg da ngay gis benn mbir nga war koo xeex doo xeex ba ñoo ñëw daanu sa kaw ndax ñaari déclaration yi laa ci dégg mooy Abdourahmane Diouf ak ki nga xamante ni moom mooy Euh, Pape Djibril Fall. Pape Djibril Fall donte que yeneen yi sew dégg naa ko ci ñenn ñoo xam ne ñu ngi sur le terrain lañ bëgg ci parrain amaguñu ko. Mhm. ndax man am na ñu ma xam ñu bëri lañ waxoon ne nañ ko am ci pare actuellement xaaj ga sax amaguñu ko. Mhm. dëkk bi moo dëgër. Mhm. yëfi métti mais mbir mi mooy. bu fekkee réew dafa toll ci nit ñëpp am lu ñuy xaar. am ku ñuy déglu. kooke ñay mbokkam taxaw waa Pastef gisagoo ci kenn ko pare na kon dèjà moo lay xamal ne li ëpp ci askan wi Ousmane Sonko lay àndal léegi nag ñoom Pape Djibril ak ñoom ñële mhm. nañu dem gis nga bu fekkee yow ut ay parrainage nga xam ne yow 50 000 lañ la laaj 50 000 yooyu mille 000 lañ soxla mhm. léegi 35 000 yooyu noonu bu fekkee moo la bëgg te est-ce que yow élection yoo xam ne nii pour nga am majorité minimum mhm. di nga am 2 millions électeurs yu la wateel est-ce que kon dana yomb. <laughs> kon est-ce que kooku na muy sonn nit moom tey ñoo bañ a déposé seen di yàq seen 30 millions. <laughs> seen 30 ah, millions ba si <laughs> a tëkkay. Ah. kon yow léegi ki war a dem si urne wateel la. Mm-hmm. ah loolu it ñoom. Euh, ndax bi bokk ak candidat yi parrain a yomb si ñoom ndax mel na ni euh, dafa dëgër këcc ci ñoom comme ni koy gars yi waxee dëgg dafa dëgër opposition yi. ñi nga xam ne ñoo fi nekk. Mm-hmm. maanaam Ousmane Sonko mooy seen meneur de jeu. Mm-hmm. meneur de jeu nag. Mm-hmm. bu fekkente ne dafa am problème ba mun te circuler. franc yi duñu mën a dox. te ku ci mel ni Pape Djibril Fall man ba léegi waxam ji ni ma ko déggee rek mooy dindi tuuma. ndax ni ma ko déggee ci comme dindi tuuma mooy. commencement ba tey. Mhm. nit ñi li li liñ ko liñ ko jàppee mooy moom benn pion boo xamante ne nii. Mhm. moo ki nga xam ne moo fi fi nekk réeróo wuñ mhm. boo ko seetaanee wala ya nga déglu ko ci ay discours yu bari. baat boobu noonu dafa mel ni soogee na ko ba maanaam buy wax à chaque fois da koy dégg ci biir waxam. kon tey bu ñëwee andiwaat liitam man damay jël waxam jooju rek teg ko fa nga xam ne fa laa tegoon. waxam yi nga xamante ne nii moo paase. parce que tey bu fekkente ne Ousmane Sonko. dafa nekk ci comme par exemple ay xat-xat mais terewul tam ñi nga xam ne ànd nañ ak ak ak euh, Ousmane Sonko. Mhm. fañ a tegoon seen tànkam fañ tegoon seen tànk bougé wuñu te kenn mun a fexe ba tam ñoom ñu bougé. Mhm. kon tam benn opposition boo xamante ne nii tey da ngay ñëw di bëgg nga dugal leneen ci bopp ñi nga xam ne ñooy ndaw yitam mhm. dañ la ciy xam mere la mais ñoom li nga xamante ne nii mooy seen bëgg-bëgg. te gis nga Mamadou. Ousmane Sonko bu demoon ba nga xamante ne nii élection. jot na. Mhm. nga xamante ne nii gàllankoor nañ ko wala fakkatal nañ ko bañ na moom bañ na moom mënut a bokk. Mhm. su boobaa it kim xool ba ne kee àndalee nag moom donte keebaa jàlloo la wax it. Mhm. kon xamal ne président bu Sénégal. Saalum Saalum Saalum Saalum lay doon. lay doon xamal tax. nit ñi gëm nañ ko te bu ñu demee ba nga xamante ne nii gisuñu ko ci terrain bi it ku mu wax ne àndalee nag kee. kooku moom la ñu àndal barki démb waa dégg nañ ko ci waxtaanu sëñ Moustapha Sy nee na ñoom ñi nga xam ne dañoo yaakaar ne mën nañoo gàllankoor ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko mm-hmm. même buñ ko naroon a gàllankoor man mën naa koo yóbbaale te pourtant bi wax boobu noonu wax bu am solo la mm-hmm. te nit ñi bàyyiwuñ ci xel mm-hmm. kon li may wax mooy que ne Pape Djibril Fall ak keneen laa ku mën a doon Abdourahmane ak ku mu ci mën a doon rek yow maanaam li ñuy wax naan ko wax feeñ te gis nga nga Sénégal ki toog ci ru xam ne pat kooku lañ xam fan la jëm mais à chaque boo waxee dañu xam yow fan nga féete te moom xam nañ ko démb tey doog a ñëw Mamadou Ba. Mhm. jërëjëf Keba rapidement ñu dem ci euh, actualité yi ba tey mel na ni Senelec jamono ji coow topp na ko moom it ndax seeraayu facture courant yi mel na ni ku euh, daan lakk 50 tey yaa ngi ci 50 60 wala 100 et quelque ndax ni mel ni doonut loo xamante ne ni luy bëgg a doggali askan wi la. Mm, Senelec moom xam naa ne. Mhm. yàgg nañ leen di tuumaal di leen tooñ mais tooñ googu dafa mel ni daa bëgg a doon dëgg. Mhm. ndax un danoo am benn problème ci benn bërëb ma ne woon seen lekk am problème mu seen machine yi mënuñoo liggéey factures yi pour ñu distribuer ko ñu war a def relevé euh, relevé wu ñu ay contre ñu toog deux mois ñu ñëw centre commercial bu ma nekkoon relevé wu ñu facture de waaj ñëw ne day coupé ñëw ne day coupé facture bi da day coupé courant bi gars yi na ko pour pourquoi ngay coupé suñ courant yow yaa ñu war a jox facture joxooñu léegi ngay coupé bi coow bëree dana mujj woo supérieur am mu ne ko garaaw demal bi ci tegee moom keroog bi ñu demee ba coow li kii def nañu fa Senelec gii moom moo waxal boppam de. Mhm. kilifa ya fa ne. Mhm. ñoo fa ne def lu leen neex. ñoom duñu fay courant est-ce que xam nga ne agence Senelec yi ñu fay courant. ñoom personnel yi. du ñu fay courant ñun si courant bi ñuy liggéey ñun ñoo koy kii. réew mi nag fu ñuy fayee courant ñoom ñu ngi ni gis nga dëkk bi Mamadou. ab fonctionnaire ngay doon ñu lay fay nuyu mbedd yi sax mairie koy fay mais nekk si bërëb ñu lay fay. ba pare yow askan wi nga xam ne ñooy dem ñaq yi di ñuqi di ñëw di la fay jàll bu ko yow seen ngay dundaat si beneen kii courant bu seer bi keroog gis dégg naa ma dem bi tey directeur bi di wax ne jamono ji bu naaj bi tàngee yi fi day yokk mais xam nañ ak yokk mais triplé barki de mu benn jigéen nee na moom dañ koo jox facture boo xam ne 40 mille yu teg weccet la daan fay ñu indil ko facture 200 mille nee na moom xamul nu war a def mu yenn facture bi dem Senelec bu newee ñu ne ko danoo juum mais léegi juumuñ de ñoo ko tey exprès la mm-hmm. boo ñëwee léegi 200 mille a mais duñ annulé facture boobu de négociation ngay annulé duñ ko annulé dañuy def négociation wane ne dañoo juum fexe léegi bu la defalee 100000 francs xam nga da nga naan wàññeeku na 200000 lañ mën loon mais wàññeeku nañ ma 100000 francs yi kon naa jéem a fay 100000 francs yi sinon du ma am courant mais courant fay 40000 ñu triplé la sa facture jox la 200000 ñëw nga ne dañoo juum mais njuumte loolu moom en tant que structure bu toll noonu loolu ñoom war nañ ko accepter noonu te lu jaar ci machine sax mais quand même yoo xam ne nag dëkk bi nit ñi dañoo sonn dëkk bi lépp a nga jàll bu ko courant bi nga xam ne mënta ñàkk tey clim boo ko yoree boo ko taalee bu weer dee bu ñu la fayoo ko nga kii woyofal gii ñu indi fi ne woyofal tey jii nii koo wax mën la diesel la 5000 francs bi nga daan dugal mu mën la demal quelque temps boo ko dugalee léegi am na koo xam ne nee daan dugal ay ah. bi presque ah, laa ko jàppee nañ bàyyi mbir yi gis nga mbir mi jafe na état bi buy wut xaalis dafa am bërëb yoo xam ne si la wutee xaalis Senelec da cee bokk te dama na xaalis il faut mu teg ay manigas am pour mën a récupérer l'argent l'argent boobu nag ci askan bi la ko mën a jëlee te bi amul fenn fu mën a jaar ndax boo xëyee yokk impôt problème am boo xëyee yokk taxes yi problème am fi nga ko mën a jëlee mooy Senelec gii kat outil la boo xam ne nii dafa war a génne nañ fexe profité ci mais yooyu moom nañ dimbale ba nit ñi sonn nañ. mais ñoom li ñuy def nii est-ce wul booy pour jël gaal yi ñaa ngi dem. maag sawru suba ñu dem dégg nga ñii dem ñëpp balaay nekkuñ si sago mais que vraiment tellement que daal sëñ bi daal doy waajal subaa ñu dem sawru ñu ñëw ci yow yor nga place di liggéey xam nga seertaay courant bi ndax li nu mel jàppoo ne euh, dafa am lu ci éla état euh, euh, laxas lu ci bokkut waaw li ci état laxas lu ci bokkut mooy ku amul li nga xamante ne mooy wujju nu la neex ngay doxalee ndax tey boo xoolee facture yi nga xamante ne tey maanaam moom la ñuy mujj a gis dañuy gis ne yokkute gi mhm. dafa bari te bu njëkkoon ci lañ ko doon seetlu mhm. mooy da nga liggéey événement ba pare mhm. ñu ne la yow kat sa facture bi yàlla tax mu seer da dugg ci biir événement bi xëy na dolli dolli dolli dolli nga matériel wala comme da ngay guddee da nga doon wàcc dix huit heures mais léegi dangay dem ba comme par exemple une heure de matin ngay wàcc léegi loolu facture boobu daa dañ ko mën a comprendre mais seer gi yëpp ay vingt mille moo ci doon dolleeku wala comme par exemple tey ay dix mille mais tey man sama facture bi nga xam ne moom laa mujjoon a fay maa ngi fayoon cinquante mille deux cent cinquante moom laa fayoon. Euh. facture bi bu ñëwee mi ngi nekk quatre vingt cinq mille cent quatre vingt dix. kon vingt mille et quelque. vingt mille et quelque ak dooleeku na ci te pourtant nekkul. kay kuraan vingt mille. kuraan cinquante mille yi teg béykat yi sow ñu indi la quatre vingt nangam. mille la si yow. te te du du question ne dañ maa wax ne ma da ngaa ci événement. parce que man mën naa ne la événement màggal gii nii yéen xam ngeen ni mu aw demee. liggéeyuma ci comme par exemple toog sama place psychologiquement di liggéey comme man na ma doon liggéey bëri na liggéey yu bëri yoo xam ne dama ko jël sax delloo ko ngir sama manque de temps mais xool nañ li nga xam ne moom moo leen neex def nañ ko bi ma demee nag wax nañu ma solution nee nañ ma léegi kon comme demee na noonu te yow ci courant bi ci ngay liggéey li nga yor da koy indi danañ fexe ba ki nga war a xam ne moo war a coupé du coupé mais tam yow fexeel ba balaa facture bala di ñëw li nga fi amoon comme restant nga ñëw fay ko loolu loolu lañ mujj ak man. mooy li ma doon wax léegi dañ lay indil ba pare tegal na ko di négocier ak yow pour nga fayee nii mais duñ annulé facteur boobu la. waaw loolu loolu lañ ah. mujj ah, waaye nag na ko. waaye waaye nag nu mu mën a def it am na ci ñoo xamante ni tey mën nañuy cité ku mel ni sëñ Mamour mu sëñ Mourtala mhm. boo demee tey fi nga xam ne moo di barab bu liggéeyukaayam boo yéegee ci kaw mhm. dal bi yan ni mu toll noonu la ay salaire am ci loo xamante ni maanaam da ko aj ci Senelec buñ doxalee ma do mu doxal buñ doxalut mu doxal ndax moom génn na fi nga xam ne mooy réew mi ba xam ne psychologiquement lan moo xew ci wàllum courant mm. ndax boo xoolee tey móoru yi ñu bëri ñu ngi ñu ngi ciy tàmbali at di yeewu ku ci ñëw sa panneau solaire nga indaale indi say batterie installé sa kër say ventilo di daw nga xam ne yow li li nga xam ne moom la ñu uppoo ci réew mu am pétrole am gaz te loolu yëpp bokk ci li togg courant bi waaw mais loolu lépp su amee maanaam awalewuñ ko fi ñu ko war a awalee it nii dong lay mën a demee. doggale askan wi waaw askan wi rek. Sénélec dana ne ci fay bor bato bi lañ liyee fële indi ko fii teg ko ci bato boobu noonu day togg courant distribué Sénégal fii lañ foo xoon ne am nañ courant bay jaay Gambie Guinée Bissau tey jii ñu facture yi seer dafa mel ni Guinée Bissau sax fa ne gis fan yële sax ne euh, nañ ko peneñ fa courant ndax waa ji dafa yor gabu 18 milliards bu mën dafa euh, fan yële sax kii Kéba fan yële sax maa ngi doon xeex ngir dëkk ba nga xam ne fa laa dëkk muy tànn nga xam ne digganteem ak tayef juróom kilomètres lay tolloon chaque jour ñu dañuy yaay ñu dégg courant nga xam ne boo ko yoroon téléphone tey pour nga chargé ko da ngay dem Sadio wala nga dem Colobane mu nekk nga loo xamante ni askan dañ koy dund mu nekk lu metti mais yaa dem naa tam dem nii comme par exemple kenn ayee kenn mooy takk sareet lëkkale ay mbaam xëy na baam yi nga xam ne Saloum Saloum war naa xam lëkkale benn ci digg bi takkaat ñaar kenn mooy dem chargé ji su beneen yoonee keneen mooy dem ñu jël nga téléphone yëpp te bu ñu demee fañ koy chargé ji mm. téléphone bu nekk pourtant dañ ci fayat cent francs pour ñu ma leen ko chargé ñu te boo ñëwee ci guddi bi sax parce que li nga xamante ni moo fi nekk mooy ay youtube ak ay nangam nga di ci ay ki nekk di seetaan am na ñoo xam ne seen seen seen seen i kii borom kër nekkuñu fa te foofu lañ mën a jaaree ba mën a déggante ak ñoom te pourtant tànne ak tey la mm-hmm, loo xamante ni tey su ma ko doon xeex ci courant sax damay dem ba mu yàgg ma naan est ñun tey bu courant bi ñëwoon tam duñu andil facture boo xam ne duñ ko mën a fay xam ne mooy ñu jeexal ci du doon wàññeeku ci pay dañ ne woon Macky Sall dafa defar ay tooli courant tooli courant yi nag fekkee léegi dañuy jël dañuy jël eh, nañ ñoo ne tooli courant ya danoo soppeeku di jëli gasoil parce que tooli courant lañ fi defaroon mooy kii centrale <laughs> solaire yi fi mais bu fekkee centrale yooyu dafa ñëw ba pare jàll bu ko na day consommer leneen ah nañ ñu wax ne centrale solaire yi ñu fi indi woon nag doxatul ci naaj bi léegi day jël gaz pétrole wala day jël leneen moo tax affaire yi seer mooy panneau panneau panneau solaire yi mu fi indi woon panneau yi yaatu yi mooy yi nga xam ne dañu doon def ay tool ñu naan centrale fii waaye ba waa pernet ay tool yi courant tool yooyu nag bu fekkee dafa sàll ko ba pare tool yooyu noonu doon consommé si énergie solaire bu muy naaj bi mm. léegi fekkee day jël gasoil nañ wax ne nag léegi dañ leen monté ay a boo ko doxal Gambie Gambie Gambie bu fekkee am na forage bu courant mm. ak léegi la mais man nekk naa fa 2006 ba 2013 amul forage booy dem te courant koy doxal yëpp salaire a koy doxal te duñ manqué ndox courant kay moo mm. am ndox te itam keebaa man am na benn affaire boo xam ne boo xam ne jaaxal na ma am na ay salaire yoo xam ne batterie amu ko état bi moo koy joxee yaakaar na ay 600000 lañ koy leblee te en tant que yow su weer dee da ngay dugal doo manqué courant moom yow mais ah. saa weer dee dugaloo yow moom courant amatoo dañ lay coupé xam naa yi nga wax noonu bis boo doonee président ñàkkum courant dana fi jeex Keba jërëjëf ñu dem bitim réew gaaw ndax euh, waxtu yi xëccu na jëm ci jeex euh, Palestine Israël mel na ni jéyee jaa ngi gën di yokk bakkan yaa ngi gën a rot bërgi démb gis nga congu gi ñoom ku ci nekk naan sa moroom yawa yawa euh, ñu daal defa bombardé hôpital lu mat ay doomu aadama yu takku daal defa ñàkk seen bakkan te réew jullit yépp a ngi croisé les bras toog di seetaan ndax li ni mel lan nga jàpp ne mooy saafaraas yi mhm, jërëjëf xam naa <coughs> mu doon bis boo xam ne la ndax conflit la boo xam ne ëpp na fukki at parce que mën na seize cent jàpp quinze cent mhm. muy conflit boo xam ne ku ko wax te wax dëgg mhm. Israël dañoo tooñ Palestine mhm. Israël nag ay siif lañu mooy ay yawut lañu Palestine ay jullit lañ ñun suñ mbokk lañu ñu ngi leen di masaw di ñaan yàlla génne leen ci jafe-jafe googu ñu nekk ndax bu fekkee ñoom suuf bañ toog waa Palestine danoo bëgg ñëw nangu suuf sa ñoom ñu bañ moo di coow li yépp Palestine nag moytu nañ ba sonn Israël di leen jaay doole ànd réew yi occidentaux yi ñu dimbali leen surtout si mel ni États-Unis Allemagne ak jom France gis nañ dem na sax ba yow boo gis naa démb benn suyeer euh, Algérie boo xam ne nii dafa bind ci itam di jàppale waa Palestine euh, waa fédération France di ko gars yi yor club ba fële di ko teg ay daan dem na ba benn sama bi nga xam ne doon na jàppale gis nga moom ak fédération ba gis nga coow laa ngi bëri temps yi gis nga réew mi euh, sëñ bi li mën a xew diine jii ñu bokk ko ñun ñun jullit ñi moom ak lu mën a xew. Mhm. nañu wane suñu position. le président de la république dañ ko ci interpellé ndax li tax. Mhm. bi fi Charlie Hebdo amee fële. ab ah. journal bu ne ca France caricature Seydina Mohamed mi ngeen si mindeef. dafa solee fii ay dàllam ñëw boobu la doon teg xeeru autoroute à péage Ila Touba bii. boobu à l'époque sëñ Seydi Moxtaar yal yàlla yokk leeram moo fi newoon xalif général de Mouride. bi mu tegee xeer bi ba pare. Mhm. la dugg fafal naaw dem France sol costume bu ñuul kub naan ceci Charlie di jàppale waa Charlie Hebdo te moom jullit la. ku ñu xam ku ñu ràññee lu yàggul dara def na Màkka defi umraam na génn wax ne falastine waa Israël ñu ngi leen di tooñ nañ bàyyi loolu benn seul président lañ gis ci Afrique mu daal di ko def muy Cyril Ramaphosa muy président bu réewum Afrique du Sud wane na position am ne waa Palestine gii Israël dañ leen tooñ dem na ba Banda Gaza tey jii dund ga nga xam ne edd alimentaire bi ñu war a yóbbul nga xam ne waa loni ñu ngi ko dajale noonu mu dem ca frontière ba oto yaa nga nee rang sànq ni may xool journal gis naa oto ba tey ñu ngi bloqué mënuñu génn pour mën a dem yóbbul askan bi loolu dem nañ ba privé leen ndox mënuñu am ndox coupé seeni courant mënuñu am ñu wóor ne di rey seeni askan tellement que ba hôpital bi ñu fa mujjee bombardé bu ñu paree ñoom ñu ngi koy jéem a jiin waa Palestine wax ne ñoo doon yëkkati seen bomb euh, mooy waa avance googu nga xam ne ñoom ci Palestine lañ bokkee ñoom lañ jàppale ne ñoo doon lancé seen i missile missile yi dal kii bi mais loolu du dëgg ndax ñoom alerté woon nañ mhm. avant lii di xew wax ne doomu Israël yi ne Palestine mhm. rawatina côté Gaza nañ génn te bi yàggul dara si lañ daal di def bombardement boobu ba hôpital boobee la fa faatu si ay doomu aadama tellement que bëri nañ démb gis naa benn oustaz bi ciy def benn témoignage ne dafa am benn xale bu jigéen boo xam ne wane ngëm-ngëmu doomu aadama si digganteem ak boromam mhm. ne xale bu jigéen bi dafa nekkoon moom ak rakk ji explosion bi laal leen mhm. moom ñu ñëw di ko faj mu wax médecin yi ne leen bàyyi leen ma ngeen dem jël sama rakk mhm. ngeen fexe ba sax ko sax ko ci mu làmmiñam mu wax laa ilaha illallah bu mujjee si làmmiñam bu dee ñu sayit dem na moo gën ngeen bëgg may jéem a sowee te man wóoruma ko dina muccam déet te moom bu muccee te baatam laay laa illaa mujjut si mën naa doon neneen dem leen ngeen gàkko mu wax laa ilaa illallah ñun ñëpp buñ génnee jamono buñ demee yàlla yërëm ñi jéggal ñu xam nga loolu bu ko xale di wax moo lay wan ne ngëm-ngëmu doomu aadama fi mu toll kon bu ko defee ñuy mastawaat ñooñu rek di ñaan yàlla suñu borom teggi leen natt boobee ndax métti na trop te ñu waxaat daal ñi nga xam ne ñooy ay jullit fa mel ni Arabie Saoudite dañ leen di interpellé réewi ñëpp dañ leen interpellé ci mbir mi ñu taxaw wax ci ndax lii ñuy woo teg ci kaw gars yi vraiment métti na méttiwaay goo xam ne moom ñu ngi jooy suñu waaja muy alaaj Sidy ndax moom bu fi newoon moom lii lépp dina kii vraiment daal métti na trop. Euh, ñaari minutes laa la may nag sawru euh, mbirum Palestine Israël euh, rapidement rek ndax ñu ngi signalé ne benn benn minute moo ñu dese rapidement rek lan nga jàpp ne moom mooy saafara waaw comme fi Keba daanelee rek. Mm-hmm. ñuy ñu leen di addi ñu leen addi ñu leen addi ñu leen addi masaw mm-hmm. bu baax ndax wax dëgg yàlla yëf yi. Mm-hmm. metti na. waaye it bu fekkente ne lu mel nii. dafa am il rek ñu war a wax. Mm-hmm. il faut ñu jóg wax ci mbir mi comme ni ko Keba waxee mm-hmm. ñi ngi nekk di jooy alaay ak Serigne Lamine ndax bu mm-hmm. réew mi yëngoo bañ naan danañ guerre bu jógee ba wax rek kenn dootul sànni xeer mu nekk koo xam ne tey jafe na nit ku ñëw porté combat bi nga xamante ne nii tey moom la porté woon mais tamit dama yaakaar ne dañoo desoo dëgg dëgg-dëgg suñu borom ndax bu fekkente ne nit ki dafa tooñ nit ki nga xam ne kim tooñ yow sa mbokkam jullit la position ba nga ca war a taxaw pourtant yontu yàlla Muhammad moo la ko njëkk wax sax ci benn hadis mu ne al moominu way gëm lil moominu ci way gëm mu ne kalbun yaa ni mu ne dañoo war a mel ne tabax mu ne ko nan mu ne yaax yasuru def benn say mel ni ñaari mool yoo xam ne ciment bu tooy dafa dox seen diggante moom daal yàlla nañu ak suñ borom may dëgg ak topp jërëjëf jërëjëf Keba ñaari baat rek euh, tàggoo ndax euh, waxtu waa ngi xëccu jëm jeex daanaka sax jeexal ndax gi nga suñu réalisateur mu ngi signalé ne jeex na tàkk kon mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal euh, encore une fois rapidement ñaari baat. ci tàggoo bi comme tàggatoo bu du tàggoo rek jox leen di dajee beneen jëmmi jamono di ñaan yàlla luñ fa wax li fi jub ñoo xam ne yàlla li fi dëng ñoo xam ne gàtt xam na xam-xam la ak ñàkk fa sax mm-hmm. ñu ñaanal yàlla suñu borom defal ñëpp jàmm waaye di masaw suñu mbokki Palestine yooyu yëpp di jox nit ñi dig daje beneen jëmmi jamono comme ni ñu koy defee di gërëm suñu co-débatteur muy sawru ci liggéey bu am am solo bi tey moom tabaarakallaa liggéey bi am na salo di wax ne lii la dañ fi toog ngir joxe suñu xalaat rek mais du xam-xam ñu ñaanal ñëpp yàlla wax wax na ci alxuraan loolu am na ko yàlla wax ci alxuraan <laughs> tàggatoo bu gaaw kon xam naa tàggatoo euh, tàggatoo <laughs> ñoo ngi ñoo ngi nuyu ñëpp euh, Mamadou Ba ak euh, ki nga xam ne mooy kebaa Keba Diallo PDC El moo di Diouf ak euh, suñu nijaay dañoo am nijaay ju bees is joobi Mor kan ñoo ngi koy nuyu bu baax di ko ziar ba ma kenn laaj ne lu waral lañ dina yaay jeeg lu nangam waaw après dinañ ko dinañ ko laaj kay ñëpp waaw am na ko yàlla wax jërëjëf jërëjëf ma jëng kaw ma sawru ak Keba jërë ngeen jëf mbokk ngeen doon ci FST li nañ leen ci acteur de la ngeen koy am àjjuma yu yàlla sàkk kon mbokk ñu leen di dox dig daje ëllëg ak jàmm incha allah gërëm ak Mor Diop bi nekkoon ci euh, caméra bi ak réalisation bi Mor Kane ci machine bi cant ngërëm ñeel na mbooleem ku ci jàppoon ba mu jàppoon ngeen jëf ba beneen àjjuma incha